radio station of the year at the Asian Media Awards. Baatu askan wi Walfadjri International 99 point 0. Walfadjri xibaar yi mu wér. mbokk yi soppaleeru jamono Walfadjri am ak mbégte fekk waat ak yéen ci seen émission euh, sortie

Alfagiri. Ndeye Kumba euh, Diop Kane ñu koy euh, jaajëfal ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc mbokk yi sa foleeru jamono Walfadjri amaat mbégte feggoog yéen ni ñu koy defee altine bal juma si seen magazine édition du soir te yemoo ko àllarba seen magazine édition du soir ñu am mbégte dalal suñu plateau Abdourahmane Sall di mandataire bu euh, Déthié Fall 2024 également ci plateau bi dinañ ci fego ak euh, Ayoba Faye ak euh, Issa Tine du ñu def lu dul nuyu suñu invité doog ñëw ci ponk yi nga xamante ne dañ ko waxtaanee Abdourahmane ñu ngi nuyu. maa ngi lay nuyu Awa di nuyu ñi ma bokk plateau bi Issa. Ayop ah, Ayop temps yi moom il avait fait un peu l'actualité <laughs> on le suivait de très près di nuyu tous les Sénégalais yi nga xam ni ñuy seetaan. Mhm. di leen andi nuyoo notre président et candidat Déthié Fall ak l'ensemble des militants. ak de parti qui soutiennent la de coalition Déthié Fall 2024. merci beaucoup Abdourahmane Ayoba bienvenue. Euh, merci Awa maa ngi am mbégte lool teewaat fii ci plateau édition du soir bi di dalal bu baax suñu invité bi nga xamante ni mooy mandataire ba euh, candidat Déthié Fall di nuyu sama naataango Issa Tine si Mhm. moo ne ne Issa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Awa di nuyu Abdourahmane euh, Sall di nuyu euh, Ayoba Faye di nuyu Sénégalais yi ñu si daan ci Walf TV ak suñu différentes plateformes. voilà ñu ñëw rapidement ci divers yi tey mode fast track. oui divers yi dañ koy door ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ndongo yi jóg nañu tey euh, lañ wax nag moo di dafa doy parce que déjà li ñuy faat ci ay ndongo ci réew mi bari na beneen bi nga xam ne moo ci topp mooy seen naataango bi la di Alpha Yoro Tunkara ba léegi mënaguñ koo denc Awa li ko waral mooy ñoom nee nañu faw ñu jot rapport d'autopsie bi parce que li ñu jàpp mooy dafa am ay preuve yoo xam ne dañ ko nar a euh, nëbb ci mbir mi loolu la itam gis nañu enseignants yi nga xam ne ñoo fa nekk mu di waa SAES e euh, au niveau national même ñoom itam ñu wax que ni faaw ñu leeral mbir yi nu mu gën a gaawee te itam université boobule fi mu nekk nii daanaka dañ ko barricadé kenn mënul dugg kenn mënul génn ndax bërki démb rek am na ñoo xam ne biñ bëggee génn déjà euh, dem nañ ba mujjee woote waat sax ne dañoo nar a tourné waat ak seen ndax takk der yi nekk ci bunt bi loolu itam di loo xam ne dañ koy ñaawlu ñu dugg ci wàllum politique ak ñi le communication communications euh, ñoom nag yëkk nañ ay kàddu wax ne lu tolloog ñetti milliards su ne sunay koppar ñàkk nañ ko ginnaaw mesures yi nga xam ne Moussa Bocar Thiam moom la jëloon daal di coupé internet tey ji nag Guy Marius Sagna ak waa aar sunu élection demoon nañ seeti ji leen ñu ne dañuy daal di saisir euh, ñi nga xam ne ñoo di le ministère du travail euh, ngir ñu wax ci mbir mi front de défense pour la démocratie juddu na mu am ñoo xam ne dañ leen a ràññee ci wàllum média ñu daal di koy teg buñ mën nañ cee cité kilé di Mame Birame Wathie Thioro Diouf Salma Ibrahima Fall Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ci euh, bokk tey ji sax gis nañu Guy Marius Sagna euh, ak Ababacar Mboup euh, ñu daal di ñëwoon ci conférence presse bi ñu doon def ñu wax que ni aljuma bi ñu dëgmal dinañu amal ab manifestation ngir wax jëmale ko ci seen xalaat ci réewum Sénégal ak ni muy doxee wàllum démocratie ñeneen mu di les détenus politiques seen famille jóg nañu ni seen yaakaar dafa tas ginnaaw bu ñu reporté élection présidentielle bi samedi bi ñu dëgmal Awa Diop Ndiaye dinañu amal ñoom itam ay manifestation ngir ñaawlu ñu reporté élection présidentielle nga xam ne amoon nañ espoir que ni euh, ginnaaw présidentielle bi dinañ am régime bu bees. Mhm. boo xam ne dina mën a tax ñu génn kaso yi finalement France dali xadeen. Mhm. mu mel ni kon seen yaakaar dafa yàqeeku ñoom famille détenu yooyu dinañ ci ñëw gën ci xuus mais dañ koy tàmbalee ak point bu njëkk bi nga évoqué tey ji mhm. la situation qui prévaut tey ji à l'université Gaston Berger de Saint-Louis violence yi amoon semaine bële moo ci découlé mort d'homme ba léegi mënaguñu rob ndax certificat de genre de mort lañ soxla. waaw jërëjëf Awa tout d'abord ñuy masawu tout le peuple sénégalais mhm. si décès yooyu décès yi fi amat di également regretter que actuellement quand on a un peu l'impression que au Sénégal du ñu émouvoir comme il faut face à ces décès la suñuy doom yi ñu ngi leen di rey mais j'ai l'impression que ñu ngi commencé di ko miis ba duñ ko jox duñ ko jox a euh, bi wax Euh, am na pays yoo xam ne bu benn seen benn doom génnee àdduna dafay am tout le pays ñëpp a ñëpp ay émouvoir mhm. ay mat mais Sénégal j'ai l'impression que dañ ko commencé soofantal dañ ko duñ ko jox aq bi war alors que ku si nekk war na considérer xale yi comme seen i doom comme ko xam ne si yow la bokk ba nga xam ne bu lii dalee mu mu mu ñu war a mën a jóg taxawaay taxawaay bi war ba nga xam dootul mën a am mhm. désolé aussi parce que quand même aussi Macky Sall amel nañu ça quand il faut que qu'on ose le dire parce que lim ñu teg li mu teg sénégalais yi li mu teg famille yi métti na si loo xam ni seeni seeni droit la koo xam ni da nga violer ay droit am loo xam ni moo ko moom mu wax di ko wax ay ba manifestation ba dee di ko si fekk je crois que ça également la communauté internationale ñëpp ñoo xam ni àq ak yelleefu doomu aadama yitteel na leen war nañ ci taxaw pour arrêter ce qui se passe parce que quand même aujourd'hui nous souffrons dans notre chair parce que quelque part c'est nos enfants c'est nos neveux c'est nous-mêmes quelque part et je crois que il faut que ça s'arrête mais est que est-ce que déjà par rapport ak li ñuy gis parce que gisoon nañ ko en euh, ñi nga xam ne ñoo faatu woon awa bi ñuy jëm ci élection présidentielle yi amul kenn koo xam ne moom lañ porteel responsabilité bi que ni kii moo leen faat amul procès amul dara ñu jëmoon ci présidentielle boo xam ne finalement annulé nañ ko est-ce que population bi aussi du ñoom souvent ñoo ci ñoo ci payer des pots euh, qu'elles n'ont pas cassés effectivement si population yi ñoom ñoo nekk di di fay di fay li nga xam ni erreur non gouvernant la seen seen seen seen loo li nga xam ni du seen ñoom ñoo koy tey di ko def les population sont en train de payer et c'est ce qui n'est pas normal c'est pour ça que j'aimerais même sur li ñuy waxtaan naa yëpp naan ay les des lois d'amnistie pour effacer nous sommes contre nous contre parce que en fait il faudrait pas également que ay morts des Sénégalais ñu leen di rey li yëpp am fi et pour un besoin un des calculs politiques ñu bëgg profito dans ces conditions la pour ne dañuy effacer tout ce qui se passe nous sommes tout à fait contre ça il faudrait que le régime qui va venir en place mette en lumière tout ce qui s'est passé pour que les responsabilités soient posées ba nga xam ne même bu ñuy amnistier même bu ñuy joubo que la vérité se sache que les gens soient mis devant leurs responsabilités. Mm et que après avoir tous ces morts là ñu ne. faire table rase sur cela d'accord Ayoba surtout la situation qui prévaut à l'université université dañu daan dégg franchise universitaire entre autres mais tey université Saint-Louis également tàmm nañu di gis.